mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey ay vingt-huit ci suratul an'am bal bada lahum ma kaanu yuxfuuna min qablu inna alhamdulillah inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi ñu ngi santaar suñu boroom subhanahu wa taala mi ñu dajale ci weeru màgg wi ci jeexitalu weeru màgg wi ci fukki fan yu barkeel yi nga xam ni ay guddeem ak i bëccëgam yépp jullit da cee war a profito góor góorlu jéem a jege boroomam la chaque ne léegi mu jeex su ko defee bokk na la ca gën mooy waxtu wa nga jël jagleel ko téereb yàlla bi ni leen ko waxee day borom xam-xam yu jëkk ya weeru koor dañ ko doon jagleel téereb yàlla bi rawatina la nga xamee ne nii moom mooy fukki fan yu mujj yi ku ci daan wàcce ab kaamil te dana yem ñu bari waaye fan yi rek maa ngi dégg alors xamis bi nga xam ne nii mu nekk fële ci Koweït di wax ne xam na benn jigéen bu mu xam bu weeru koor jotee bus bu nekk dana wàcce kaamil jamono ji ñuy dund nii tey mu ne it fukki fan yi bu mujjee bu ñëwee bus bu nekk dana wàcce kaamil ak genn wàll loolu am na ay xadis yooyu dégg yonent bi tere ñu wàcce kaamil ci ñetti fan allahuma borom xam-xam yi dañ ci seppee yenn circonstances yi lu mel ne weeru koor wala kaaba gaag ay yu demee noonu almuhim daal bokk na lu borom xam-xam yi njëkkee doon def mooy weeru koor seen temps ñu jagleel ko téere bu yàlla bi kon liñ ci jël kës néew yàlla na yàlla nangul ñu ko ñu bàyyi Cheikh Ousmane mu jëlal ñu suñu bind bu jëkk
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوث ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء
suñu boroom jalla wa ala mu ne bal bada lahum la am kay daa feeññel leen maa kaanu yuxfuuna min qablu lañu nekkoon di ko nëbbu di ko nëbb ca la jiitu walaw ruddu suñ leen delloo waatoon ca àdduna la aadu lima nuhu anhu kon day daan delloo waat ca lañ leen doon tere wa innahum la kaasibuun ñoom kay dañoo nekk di fen rek wa qaalu in hiya illa xayatuna dunya ñi ngi naan dara amul lu dul suñu dundub àdduna gi kese wa ma nahnu bi mabuusin nekk ñu mukk di dee gannaaw ba ñu ñuy dekkal walaw tara is wuqifu ala rabbihim waaye tey boo gisoon biñ leen di taxawal ci seen kanamu boroom qaala alaysa hada bilxaq seen borom na leen waaw ndax lii du dëgg qaalu bala wa rabbina ñu ne hakay ñi ngi waat ci suñu borom ni dëgg la qaala fa zuuqu alazab mu ne mos leen kon mbugal mi bima kuntum takfuruun ci li ngeen nekkoon doon ñu koy weddi qad xasira allazina kazabu bi liqaai llah ay waay perte na ña nga xam ne dañooy weddi daje ba ñuy dajeeg yàlla xatta ida jaathum saatu baxta ba baa mu leen di dikkal lii di bisu penc ci mbetteel qaalu ya xasratana ala ma farratna fiha ñu ne ewaay ñi ngi woo suñu alkaange ca la nga xam ne gàttañ lu woon nañ ko ci bañ a waajal loolu wa hum yaxmiluuna wa hum yaxmiluuna awzaarahum te ñoom day ña ngay yenu seen yen ya yen yu diis ya ala zuhurihim ca seen gannaaw ya ala saa ma yaziruun te way aka ñaaw la nga xam ne nii moom la ñu nekk di ko yenu mbokk li ñu mujj a jàng démb yéeféer yi su leen seen borom dajale ci kanamu sawara te nga war a imaginer ñaata milliards la ñuy doon ci ay nit ak i jinne su ko defee ñu ne waay aka neexoon ñu amoon occasion delluwaat àdduna ba bañ a weddi suñu aayay borom borom bi mu ne déedéet li am kay mooy la nga xam ne dañ ko doon nëbb tey moo feeñ ci ñoom mi ngi noonu lañ doon nëbb mooy la nga xam ne nii moo feeñ ci ñoom rawatina naafiq ya nga xam ni dañu doon wane ne ay julit lañu te nëbboon la nga xam ne muy ak kéeféer ak yéeféer yu bëri it yu bañoonu dugg ci lislaam te xamoon nañ ne lislaam mooy dëgg borom bi mu ne moo ne day bu ma leen jëloon delloo leen adduna it du tee ñu topp seeni bànneex dellu ca kéeféer ga mbokk aaya bi lu mu lay jàngal ndekete yoote ñi nekkul ci yoonu njub du ne dañoo xamul yoonu njub waaye seen bonu bakkan moo leen yóbbu ci loolu loolu moo tax ba am na suma benn waay neen dañu dem gendarmerie caaro yi fekk fa ñu fay dóor ay ay xale dóor yoo xam ne ay mag sax dóor yu metti gendarme bi mu taxawoon mu ne ko waaw sëñ bi yéen seen dóor yu metti na de mu ne ko yéen da ngaa xamul rek ñii bërki démb lañu fi jëlee lañu fi jógee fi mu ne bu ñu leen deferee balaa yàgg ñu ñëwaat fii gis ngeen kon dafa am doomu aadama ñoo xam ne dañoo doy waar rek amma ñi nga xam ne ñooy ahlu naar yàlla bind leen ngir sawara suñu borom nee na bu ñu demoon sawara in ñëwaat àdduna it dañu demaat ca kéefir gañ nekkoon gis ngeen loolu moo tax ba heure booy ñaan ihdina siraatal mustaqim ci fatiha sa jubluwaay ñaar lay doon yàlla xamal ñu yoon bi te saxal ñu ci yoon yi bañ dee ci waaye du ne rek xamal ñu yoon bi mi ngi noonu ndax am nañu ko xam te jaaruñu ci borom bi nag nee na yéeféer yi rey ña nga naan àdduna rek am ak dékkal amul xam ngeen ne mbokk yonent yàlla yi bokk na li taxoon yéeféer yi weddi leen ya ca gënoon a màgg mooy yàlla kenn la ak àllaaxira am na kon ñu ne alaxira amul te tey boo doon xool planète terre ñu ngi wax ay huit milliards man ngaa gëm ne cinq milliards yi ñoom gëmuñu ne alaxira am na gis ngeen gëmuñu ne alaxira am na borom boobu subhanahu wa taala mu ne cay bu doon tene ne mënoon ngaa gis ñoo ñu wedde alaxira bañ leen taxawalee nag ca seen borom ca kanamu sawara ñu ne leen waaw sawara sii moom ndax léegi du dëgg ñu ne aha kay ñi ngi waat suñu borom ne dëgg la te booba mbokk mooy xam-xam bu leer dikkal na leen mooy doomu aadama da ngay dégg moom la ñuy tuddee ilmul yaqin la ngay dégg nag soo demee ba jàkkaarloog moom loolu la ñuy tuddee aynul yaqin mooy amatoo ci sikk sàkk amma bu doon da nga caa dugg wala nga mos ko nag moom la ñuy tuddee xaqul yaqin te mooy waa sawara ñi ngi nii ci kanamu sawara sawara mi ngi leen di lakk moo tax ñoom ñépp ñu ne aha kay bala wa rabbina ñi ngi waat suñu borom wax nañ ko fi démb wax ko barki démb moo ko waat ci leneen lu dul yàlla adduna la yem waaye bu ñu demee alaxira julliteeg yéeféer nituk biddaak nituk ñépp ci bokk yem loo doon waate ca dul yàlla rek da nga ko fàtte ba demee alaxira nga la waay tàmbilee ko fii tàmbilee ko fii bàyyi leen barke cheikh diw bàyyi leen barke sëriñ diw dellu lañ ci suñuy maam yi lañ nekkoon suñ maam yi xamuñu woon lu dul yàlla waat naa ko ci yàlla billahi wallahi loolu la suñ maam yi xamoon ba ba seytaane ñëw soppil leen ko barka cheikh diw barka sëriñ diw wóor na sëñ diw wóor na cheikh diw galawaay bàyyi leen loolu balaa wa rabbina ñi ngi wàcc suñu borom borom bi nag ne leen mos leen mbugal mi ci li ngeen nekkoon di ko wet te mbokk mi ngi noonu suñu borom ku mu mbugal rek yaa sabab lu tax mu mbugal la naam mooy faalu li ma yurid waaye lépp lu muy def rek da koo teg ci xikma ak sabab dugg leen ci mbugal mi ci li ngeen nekkoon di ko weddi mi ngi noonu borom boobu nag daa di ne perte nañu weddi daje ba ñu war a daje ak seen borom mbokk yéeféer kenn gënu koo perte masalan tey jii da ngay xool yow julit mi xëy xëy sa jabar ji nga bëggoon lool nga ñëw fekk ñu ne faatu na sa bàyyi sa ndey ñu ne faatu na mais yow yaa ngi am yaqin ci ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kii de danaa ko yóbbu suul ko waaye insha allah mbaax gi ñu xamoon ci moom ak man li ma yaakaar yàlla danañu dajalawaat ci dund gi gën a mat gën a neex gën a sax dund gi ñu doon dund waaye xoolal yéeféer bi nga xam ne gëmul àllaaxira moom lu mu ñàkk ci àdduna rek c'est fini jabar ja dee na c'est fini yaay ja dee na c'est fini alal ji yàqu na c'est fini kon pertaangem fii lay commencé nag avant àllaaxira ndax suñu borom mu ne ñi weddi àllaaxira day ñoom da ngay gis ne perte nañu mooy ñi nga xam ne dañooy weddi daje bi nga xam ne nii dañ ko war a daje ak seen borom ah waaw ñi gëm seen daje borom nam lu ñu war a def ñu weddi seen borom perte nañu borom bi ne dañoo weddi seen dajeeg borom amma yu mi gëm sa dajeeg borom loo ko war a waajale suñu borom mu ne wa man kaana yarju liqaa rabbihi fa man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada yow mi mu wóor ne bis dana mas a ñëw ñu ne dee nga ñu yeñu la suul la yàlla dékkal la ngal la waay waajal ko yàlla nuñ koy waajale suñu borom mu ne jëfal jëf yu baax te bu ma bokkaale fal yaamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada borom boobu nag ne yéeféer yi ñoom buñ ñëwee daañ woo seen alkaange ay waaye alkaange ñeel nañu ci la nga xamee ne nii saggene nañ ko ci suñ diggante gisu pénc waajaluñ ko la nga xam ne moom lañ ko war a waajal mi ngi noonu amma yow julit lan la la sa borom wax mooy képp koo xam ne nii dafa gëm allaxira wa saa laha sa'yaha waajal ko la nga xam ne moom la ñu war a waajale allaxira lan lañ koy waajal al imaanu saxiix wal amalu saalix sa ngëm nga sell na sa jëf ya wóor na ñooñu ñoom ñoo ko waajal ak waajal am naa yéefir yi ñoom seen lépp mi ngi yemoon ci àdduna gëmuñu woon ne alaxira am na kon nuñ koy waajale borom bi nag nee ne keroog la ñuy yenu seen yen ya seen bakkaare yàlla jëmmal ko nu muy mel yàllaa ko xam waaye suñu borom nee na bakkaar yi dañ koy jëmmal mu nekk poids tuyaaba yi dañ koy jëmmal mu nekk poids ñu dem nag fa ñuy peese ku say yu baax ëpp yaa nga àjjana ku say yu bon ëpp yaa nga sawara borom bi nag mu ne ñoom ña nga yenu seen bakkaare ci seen gannaaw ya ak a bon la ñu yenu am na yenn riwaaya yuy wax wallahu aalam ne yéeféer bi bu génnee ci bàmmeelam gis ngeen bu génnee ci bàmmeelam benn jëmm da koy dogaale jëmm ju ñàng ju ñaaw ju xasaw mu bëgg koo moytu mu ne ko déet kaay daal di na ko dankuus war ko di ko dañal comme ni ñuy dawale fas naan ko man mii maay jëf da nga doon jëf la nga doon jëf ci àdduna maay sa jëf jii maa nekk nii moo tax suñu borom ne saa ak a ñaaw la nga xam ne ni mooy maa yëzëroon la nga xam ne moom lañ doon yenu mi ngi noonu jàngoon nañu woon xayatu dunia ah naam barakallahu fikum bismillah وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين بارك الله فيكم سني بروم مني وما الحياة الدنيا e way nekkul dundug adduna gi illa laibun wa lahu nekkul lu dul fo ak luy itteel doomu aadama laib ci jëf ya lay nekk lahu lu bari ci xol lay nekk la la itteel ci leneen wala daarul axira amma kërug alaxira day xayrun lillazina yattaquun moo gën ñeel ñi nga xam ne dañoo ragaloon ay ragaloon yàlla فلا أفلا تعقلون أم نخيا دون خل قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ñun day xam nañ ni tiis na la lool la nga xam ne ñi ngi koy wax fa innahum la yukazibunak waaye ñoom day weddiwuñu la walakin zalimina bi ayati llahi yajhadun waaye tonkat yi aaya yàlla yi rek la ñuy nekk di ko weddi rek ci gàttal mooy mi ngi noonu di ko weddi bañ koo gëm wa laqad kuzibat rusulun min qablik xamal ne it weddi woon nañ ay yonent ya nga xam ne ñoo la fi jiitu woon fa sabaru ala ma kuzibu ñoom day dañoo muñoon ca lañ leen weddee woon wa uzu hatta ataahum nasruna nekkoon nañ di leen lor ba baa mu leen di dikkal suñu ndimbal wala mubaddila li kalimati allah te soppite du am ci kaddu yàlla yi wa laqad jaaka min nabai almursalin xamal ne dikkal na la ca xabaaru yenente yi jitoon wa in kaana kabura alayka iraduhum su dee na nag daa màgg ci yow dummooyu gëñ la dummooyu fa in istataata an tabtaxiya nafaqan fi l ard su dee man nga am benn canal booy gas ci biir suuf mooy pax mooy gas mu jàll aw sullaman fi sama wala loo xam ne da nga koy yéege ci kaw asamaan ya fatatiyahum bi aya ba nga indil leen kawtéef bu leen convaincre suñu borom mu ne walaw shaa allahu la jamaahum ala alhuda su neexoon yàlla ñoom ñëpp mu boole leen ci njub gi fala takunanna min aljahilin bul bokk ci ñi nga xam ne dañoo doon ñu réer mi ngi noonu bokk suñu borom mu ne dundug àdduna gi ñu nekk mooy dund gu jege waaye ad dunya day firi it lu lu suufee par rapport ak alaxira nañ xam ne li ko fees mooy am po mbokk boo jóge woon beneen planète nga ñëw ci kaw suuf da ngay foog nit ñi dañ leen bind rek ngir po rawatina bay xool li xew ci internet bi télévision yi ak rajo yeeg yooyu gannaaw bu àllahu lahu mooy lépp lu lay itteel te rawatina lu lay itteel ci jaamu yàlla ñee ña ngay dang-dangi ci commerce ba ñee ci sport ba ñee ci politique ba ñee syndicalisme ba ñee nangam nangam ci loo xamee ne nii fàtte la leen waroon a jëriñ gis ngeen te loolu it du lit nga war ci bàyyi xel mbir mën naa baax waaye bu la itteelee ca la gën a baax baaxatul ni ngi fàttaliku Suleymaan alayhi salaam keroog bi fas yi di défilé ci kanamam fas yooyu mu waajaloon pour jihad ñuy défilé muy seetaan défilé muy seetaan ba baa jant bi so te dafa waroon a julli takkusaan mu ne inni lu mu ko xobbal xayri nu mu ko waxee inni ahbabtu hubbal xayri an zikri rabbi hatta tawaarat bil bil hijab rudduha alayya mu ne xoolal rek maa ngi bëgg lu baax naam loolu ma def lu baax la entré na fas de guerre lu baax la mais nag topp na ko ba jant bi soo julliwul te julli gi moo doon priorité mu daal di jël fas yépp rey leen ngir ñu bañ ko utilité loolu tax commerce ka baax commerce ak a baax ci jaamu yàlla yi gën a kawe la bokk nga dem indi marchandise yombalal ko ku ko amul woon waaye nekk ci magasin bi jënd jaay jënd jaay ba jant bi soo julli woo tàkkusaan ndax commerce bi baaxati na laa baaxatul lépp lu mel nag loolu la su ko defee allahu nañ koy bàyyi xel mooy lépp loo xam ne dalay itteel ca la nga waroon a def bu dee lu baax la baaxatul bu doon lu bon nag moom waxatuñ ko moom lu bon lu la itteel ci farata moom loolu moom waxee su ko waaye la baax kay la ñuy wax borom bi nag mu ne xam leen ne kërug àllaaxira gën ca ñaragal yàlla na am mbokku julit ndaw julit mën na jaaxle waaw yàlla day moom moom àdduna ak àllaaxira waaw lu tax yéeféer yi lépp luy luxe àdduna alalu àdduna ci seen loxo la nekk suñu borom yàlla ne yéen dama leen a waajal àllaaxira ndax àllaaxira mooy li gën ci yéen yonent bi alayhi salaam ne ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kaafir mi nga noonu àdduna kaso jullit la àjjana yéeféer la loolee am na ko ko firi firin bu rafet muy ibnu xajar mi nga xam ne moo nekkoon qaadi ca misra égypte dafa génn gaa yi ak ay garde wër ko mi ngi yor benn daanaka bu doon teel sunu oto yi gën a cher léegi la bokk fas yoo xam ne nii am na lu koy diri mu ngi toog mu romb benn yahut yahut baa ngi nekk ji defar ay diw ay diw ci naaj bu tàng bi taq rib lu mu ko rombee mu ne ko ibnu hajar waaye yéen dégg naa seen yonent bi day lu mu wax waaw loolu lu mu mën a nekkee mu ne yéen yéen ne adduna kaso jullit la jannatu yéefér la mu ne ko waa yow lii nga nekk nii ci nguur nu mu nekk kaso ma ne coon bi coono bi ma nekk nu mu nekk aljanna mu ne ko naam gis nga xéewal yi ma nekk nii yëpp mu ne waaw bis ma yàlla wërsëgale ma dem àjjana bu ci sama xel demee damay xam ne ci kaso laa nekkoon am déet boo ko àdduna ak li ci biiram boo ci nekkoon luxe un mille nangam boo ko comparé ak aljana da ngay xam ne ci biir kaso nga nekkoon kaso ba gën a tar ci kaso nga nekkoon mu ne ko gis nga yow coono bi ngay wax bis boo demee sawar da ngay xam ne ci àjjana nga nekkoon gis ngeen loolee kon mbokk mooy firin ba gën a kawe su ko defee julit day xam ne këram mooy àllaaxira looloo tax borom bi ne wabtaxi fi ma ataaka allah daar al axira sa kër dëgg-dëgg mu ngi àllaaxira gis ngeen borom bi mu ne xanaa du ngeen xellu te bay borom xel yi rek mën a jëriñu ci loolu mu dellu ci ab yeneen tam ne ko day xam naa ne li ñuy wax métti na la benn ñi ngi duural yàlla di ko jiiñ doom loolu métti na yonent bi ni mu méttee asamaan ak suuf yow fenkat nga ñii na dof nga ñii na njabar nga ñii ne da ngaa bëgg a réeréelu suñu kaw lu ne ñi ngi la koy wax xam naa ne loolu ma métti na la waaye nag na sa xel dal ñoom weddi wuñ la aaya yàlla lañ weddi te na am bi mu nekkee màkk ñoo ko tudde woon muhammadul amin ba baa am 40 ans muhammad mu wóor mi kuy dénkaane ba ngay dénkaane lu mu wax dëgg la gis ngeen léegi nag ñu ne ko weddi wuñ la aaya yàlla yi lañ weddi gis ngeen kon na sa na sa xel dal ci loolu borom boobu subhanahu wa taala mu ne li la dalit du yow la jëkka dal mboolem yeneen yi fi jaaroon fii lañ jaaroon ak ñoom dañoo muñoon coono yeneen saay saay sa tegoon ba tax borom bi ne ko fasbir kama sabaru ulul azmi min rusul muñal comme ni ulul azmi mu ñëwoon gaa yi yonent yàlla bi xam nga ñaata la la dund ci risala 23 ans la dund yonent yàlla nuux moom dund na presque 1000 ans 1000 ans de sabotage 1000 ans de lu nit ñi def ko ko gannaaw ba yonent yi ñëw ulul azm ana ibrahim alayhi salaam lu ne yekk nañ ko ko ba yeew ko ne dañ koy sànni ci biir sawara ana musa alayhi salaam yonent bi alayhi salaam buñ ko masaan lor danaan rahimallahu musa laqad uziya aksara min zalika fa sabar yal na yàlla yërëm musa lañ ko tegoon a gën a metti li ngeen may teg da ko muñoon gis ngeen muñal liñ la def rek moom lañ defoon yu jëkk ya isam na mariam barki dem lañ jàng xisaam la mujjoon mooy ñu koy wër pour rey ko gis ngeen kon muñal comme ni yeneen yi jëkk ya muñe woon waaye yow it mi nga xam ne yaa jaar te yoonu yeneen yooyu bëgg a dund lañ doon dund bul bañ ko la saboté yow xale bu jigéen bi ak sa muuraay bul bañ ko la sabotalee loolu c'est normal yow xale bu góor li nga xam ne tey gis nga réew mi nga ne nga nekk façon modd ca watin ya façon modd ca tolin ya façon modd ca dàll ya yow lu lépp nga teg ko de côté xool colug l'islam comportement l'islam bàyyi sëb sikkim di dem ca jàkka ila axiri xamal na loolu day nekk en contradiction ci bëgg-bëggu nit ñi fokk daañ la saboté nga dégg ko mu déggoo ko waaye muñal comme ni jëkk ya mu ñëwoon jeex na kama sabara mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala mu ne muñoon nañ ba sama ndimbal ñëw te la ma digg woon du deñ ca loolu it moo tax yonent yàlla bi ay yi ba muy wàcc fu mu ko fekk makka makka la ko fekk mu ne ko ña fi jiitu woon saboota nañ leen dimbali naa leen muñal rek at yu néew lañ ca teg yàlla jox ko ordre mu gàddaay dem madina gannaaw ba yàlla ootal ñooñu nga xam ne ñoo ko gënoon a sonal ca badar mu rey ci juróom ñaar fukk jóor leen ca toolu badar ba mi ngi noonu yeew juróom ñaar fukk yóbbu madina ba mu fa nekkee ñoom ca badar ñetti fan ba ñu nëpp ba funki mu ñëw ci teen ba ñu leen jóor mooy teen bu yàqu la woon am bal ko ñu sànni leen fa ay ana ki nga xam ne mooy abu jahal mi ngi noonu omar ibnu shar mi ngi noonu ana omay ibnu xalaf ana walid ana nangam ana otba ana nangam dégg nga man de li ma yàlla digoon gis naa ko waaye yéen ndax li leen yàlla digoon gis ngeen ko omar ibnu xattaab ñoo jàpp ci mbagg mi ne ko ah ibnu yàlla yónni ñii depuis ñetti fan lañ dee mu ne ko omar wallahi gënoo leen a dégg sama wax ji daa fekk na ñoo mënuñoo tontu rek gis ngeen kon suñu borom mu ne la mu baddil li kalimatillah te mooy fokk danaa dimbali sama yonent mi ngi noonu laqad sabaqat kalimatuna li badina al mursalin innahum lahum al mansurun mi ngi noonu fokk dinaa leen dimbali léegi nag ñoom ñu ngi la topp waaye soo bëggee ñu gëm la génnal ñu fi ay dex soo bëggee ñu gëm la naawal diw ko asamaan soo bëggee ñu gëm la ila axir mu ne ko nag bu dee ne dalaa metti dummooyi gëñ la dummooy ngay waaraate gëmuñu la soo mënee am ab canal booy jaar ci suuf ba génne aaya bu leen convaincre indi ko soo mënee naaw ko asamaan ci escalier wala loo mën a doon utiliser ba indi kawteef indi ko tee ngaa dalal sa xel te xam ne su neexoon yàlla ñoom ñëpp mu jubal leen yow dara waru la lu dul waaraateel jeex na te it mbokk suñu borom mu ne su ma neexoon jubal leen te it bokk na kawteef bu yàlla def bokk na xare bi gën a metti bu yeneen bi alei salaam xare mooy xare uhud ñu damm bëñam toj jéem rey ay sahabaam juróom ñaar fukk ci sahaba ñi ko gënoon a jege ñoom gënoon a bëgg ñoom hamza ñoom nangam mais ñooñu jiite woon xeex boobee ñoom ñëpp yàlla da leen a mujj dugal ci lislaam gars yi lii du kawtee fa gis ngeen ana abu sufyan moo jiite woon xeex ba xaalid ibnu walid moo tax ñu gañ a julit ni ikrama doomi abi jëhal ma nga nekkoon ca mbooloo ma ñoom amur ibnul aas ña nga nekkoon ca mbooloo ma hind bintu utba moo jiite woon jigéen ña ñoom ñépp waxshi moo rey saydu shuhada di hamza ñoom ñépp yàlla jamaahum alal huda yal na yàlla boole ñu ci gëm yal na yàlla jëbal jëbal suñu njaboot ne su ma neexoon ñoom ñépp mu jëbal leen kon bul bokk ci ci ñi réer li la war dal jottalil gis ngeen xatta saay saay bu bon ba firawna gaa yi ba muy dee gëmula waay waaye gëm daa fa mu war a gëmi daa gëmul fa mu war a gëmi amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu israil waaye fa mu ko defee mu baaxul gis ngeen kon nag yow it mii waaraate gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow mii waar sa baay mu bañ yaa ngi waar sa frère mu bañ sa dëkkandoo yaa ngi leen di waar ñu bañ e waay bul rey sa bopp sa warugar def nga ko li ci des moom mbiri yàlla la mi ngi noonu bul bokk ci ñi nga xam ne dañoo réer kon ñu bàyyi ak Cheikh Ousmane
إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم barakallahu fikum suñu borom mu ni innama yastajibu allazina yasma'un ñay wuy si day mooy ña nga xam ne dañuy dégg wal mawta yab'asuhumullah amma ña nga xam ne dañoo dee yàlla moo leen di dekkal ëllëg summa ilayhi yar- yurja'un gannaaw ba ci yàlla lañ leen di delloo wa qaalu lawla nuzila alayhi ayatu min rabbi ñi ngi naan amoo lu teewoon ñu wàcc ci moom kawtéef xar baax bu boowoo ci boroomam qul inna allaha qadirun ala an yunazila aaya mu ne neel yàlla de am na kattan ci wàccee xar baax muy kawtéef walakin aktharuhum la ya'lamun waaye la ëpp ci ñoom nekkuñu di xam wa ma min dabbatin fi l ard amul lenn loo xam ne danee dox ci kaw suuf wala ta'irin yatiiru bi janaahayhi wala aji naaw buy naawe ñaari laafam ya illa umamun amsalukum lu dul dañoo nekk ay giir yu mel ne yéen ma farratna fi lkitaabi min shay'in ñun day gàttañ li wuñu bàyyi wuñu lenn ca sunu téere ba ci lu aju ci ci mbir yi lépp lu mën a doon thumma ila rabbihim yuhsharun gannaaw ba ci seen borom yàlla lañ leen di dekkal ëllëg walazina kaz lañ leen di dajale ëllëg والذين كذبوا بآياتنا والذين كذبوا بآياتنا ñinga xamne dañoy wedd suñu aya summum wa bukmun fi zulumat ñom day ñinga doon ñoo xamne ñu tex lañu ñu lu lañu moy mënu ñoo wax nekk ci lëndëm ya may yashi illahu yudlilhu ku neex yalla day dana ko jubal ku neex yalla day dana ko reeral wa man yasha yaj'aluhu ala siratin mustaqim ku ko neexit mu teg ko ci kaw siratan mustaqim mi ngi noonu bokk suñu borom mu ne yonent bi bul rey sa bopp gis nga ñi nga xam ne ñooy mën a dégg ñi nga xam ne ñooy wuy si mooy ñi nga xam ne dañuy dégg te mbokk nañu xam ne du bët mooy dégg du bët mooy gis dëgg du nopp mooy dégg dëgg xol mooy dégg dëgg mi ngi noonu te mooy suñu borom mu ne maa def ca seen xol ya akinna ba mën nañoo dégg dëgg googee amma ña nga xamee ne ñooy julit dëgg ñoom ñooy wax sami'na wa ata'na ñooy dégg dëgg toppuk dëgg amma yéeféer mënul dégg dëggug yàlla gi abadan dana dégg wax ji nii mais du ko dégg déggug jëfe ko moo tax borom bi tudda leen ñu dee na ñoom dañoo dee ni nga mel ne tey jii soo fekkoon ab néew nga naan ko néew jógal jàpp julli waay ah néew génneel azaka waay ndax néew dana wuyu laa yéefir itam seen xol moo dee loolu tax ba li ngay wax amatu ñoom benn jeexital suñu borom yàlla mu ne yowmal qiyaama kay la leen di dekkal ñu dellu ci moom te it loolu mooy kaddu gu julit dul fàtte mooy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun ñépp bis dañuy delloo ci kanamu yàlla ku nekk war a waajal daje boobu mu war a daje ak boromum jalla wa ala gis ngeen borom boobu nag subhanahu wa taala nee na ñi ngi sax naan la ndax doo indi kawtiif bu jóge ci sa borom na am mbokk julit suñ yonent yàlla indi na kawtiifu kawtiif yi waaye ñoom kawtiif yañ doon tànn lañ doon wax dellu suratu isra ma niñ ko waxee rek soo bëggee ñu gëm la benn yow na nga ñu xottil fii ay dex na nga indi ay jardin ñu xam ne lii say tool la na nga ñu indi na nga ut kër goo xam ne or la na nga wàcce ak yàlla ak malaakaam ñu jàkkaarloog ñoom na nga yëkkoo asamaan ila axiri borom bi subhanahu wa taala ni su ma neexoon day wàcce aaya waaye ñoom xamuñu lu waral loolu yërmaande bu yàlla am ci xeet bi moo tax musul wàcce ay aaya suñu borom mu ne wa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun dara teewul ma wàcce leen aaya lu dul mboolem xeet yi fi mas a jaar ku fi mas a laat aaya taxul aaya ba nga gëm yàlla alak na la alak bu metti mu joxe ci misaal wa aatayna samuuda naaqata mubsirata fa zalamu biha lii ñu lay laaj waa samud lu mel noonu la ñu waxoon ay saalix nga ne yàlla la yónni d'accord montagne bii tim dëkk bi boo ci génnee gileem ñu xam ne li ngay wax am na yàlla la yónni yàlla génne gileem ca montagne ba ndax gëm nañu déedéet yàlla da leen a alal doonte ne ne mbokk nañu xam ne mboolemi aaya yu yàlla mësa yónni aaya yonent bi alayhi salaam moo gën a mat gën a sax tey jii yonent yàlla isa doon na dekkal ay néew doon na faj ay ñu feebar ana aaya ya amatul benn jeexital yonent yàlla Moussa amoon na yat bi naan soppi daan anamu kenn gisu ko yonent yàlla Salah indi woon na gileem anamu kenn gisu ko amma kawti fi yonent yàlla Muhammad mooy alquranul karim bi yàlla dëkk adduna depuis que mu wàcc ba tey ne nit ak jinne buñ daje woon mënuñoo indi lu mel ne moom ci heure bu science gënee avancé ñuy gën a am conviction ne alquran jógewul lu dul ci yàlla jalla waala mi ngi noonu tey ji liñ ci bind ci ay téere kenn xamul nu mu toll yoo xam ne scientifiquement la ñuy prou la ñuy prouver ni alxuraan mënul jóge la leen feneen fu dul ci yàlla jalla waala gis ngeen su ko defee kon borom boobu nag subhanahu wa taala ni ewaay xam leen ni amul luy dox ci kaw suuf commencé ca sonqaleen ya xorondoom ya di yéeg ba yéeg ci ñay jàpp naa ñay moo gën a rëy ci li am ci kaw suuf naam amul luy nekk ci kaw jaww ji doonte ne suuf dana yóbbaale géej ya amul lu ci nekk lu dul yàlla mu ne dama leen def ay giir yu mel ne yéen ñu am ay mbokkoo am organisation am kilifa di doxal la ñuy doxal ci seen biir loolee mbokk julit dafa yor a xam loolu yéen a ngi gis suñu borom bi ñu nettali xorondomu Suleymaan ya ba seen kilifa ga gisee Suleymaan mu nag daw leen dugg seen pax yi Souleymane ak armée ngi armée mi ngi ñëw bala ñu leen a moxoñe loolu it la suñu borom yàlla def allahuma yàlla mi bind bàyyi may yàlla moo ñu bind looloo tax ba li borom bi ni dañoo mel ne yéen dañ ne nit ñi ak bàyyi may noonu la ñu mel nit ñi am na ci ñoo xam ne jukkoy gaynde lañ yor képp kuñ dajeel agressé jël sa alal ren di nit ak lekk ci leex bi lañ ñëwale di gis ngeen looloo waay am na ci ñoo xam ne du koy xat lañ yor ki leen amal intérêt dañuy yëpp yëpp ci gannaawam ku leen amulul intérêt fu ñu toll lu ñu xam ci lu bon yàq la ko mooy politicien rek gis ngeen mi ngi noonu am na ci ñoo xam ne nii du koy jaan lañ yor mooy doo leen dégg du kii waaye ñu ngi lay yaru bis bu ñu la jekkoo rek musiba dal la am na ñoo xam ne du koy weñ lañ yor du ñu dal lu dul place su sobe heure boo déggee ñuy wax ci nit rek lu bon lañ koy wax du ñu waxal nit mukk lu baax. am na ci ñoo xam ne du koy mbaam xox lañ yor njaaloo carte ak place su sàngara loolu rek ma foofu rek nga leen di fekk place yu baax yi kenn mënul fexe ñu dem fa loole moo tax ba li ngi noonu dañoo mel ne yéen moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne nii ñi ngi waare xaje xare Uhud ci guddi gi mu gis benn nag benn baqara muy nag bu jigéen boo xam ne dañ koo rey ci kanamam bokk na lam ko firee mooy am na ku ko jege ku am njëriñ ku nar a faatu te xam ngeen bokk nag bokk nu lu ëpp njëriñ ci àll bi rawatina nag dañ koy bàyyee nag bu nag yu jigéen ñooy di génne soow mi ngi noonu mën nañ koo wulli di ca teg bagage nag dafa bëri njëriñ ca suba ga la ñu rey Hamza gis ngeen ca suba ga la ñu rey Hamza loolee kon mbokk suñu borom nag subhanahu wa taala mu ne ñoom ñëpp ay umamun lañu amsaalukum ñu mel ne yéen mu ne nag man sama téere dara rëcc mucc mbokk commencé ci sanqaleem bi ba ci ñay commencé ci yaba yi ba ci baleen commencé ci nit ak jinne ku nekk sa borom yàlla avant muy commencé génne cinquante mille ans bindoon na kañ ngay sosu kañ ngay judd loo nar a lekk fooy deeye loo lay nar a dal lépp suñu borom yàlla bind na ko cab téeréem nee na xatta garab gi ngay romb ab xob wadd ci xobu garab ga rek loolu mi ngi woon ci téere bi yàlla ba mi ngi noonu ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha kullun fi kitabin mubin lépp yàlla bind na ko loolu tax mu ne wa ma min dabbatin fi l ard illa ala allahi rizquha comme ni mu ko waxee fii loolu moo tax ba amul ku yàllay bind sànq leen ba ci ñay yabay ba ci baleen nit wala jinne lu dul bala ngaa génn li leen nar a nekk sa wërsëg yépp yàlla bind na ko gis ngeen lépp loo xam ne narta nekk sa wërsëg mënoo fexe ba jëfandikoo loolu ñu bàyyi bàyyi ci xel bu baax bis bu ne ngeen am ci misaal benn bis dama yëngal benn comprimé mi ngi noonu teg ko noonu di xaar mu seey ma dem ñëw naan ko kenn ci xale yi ñëw fekk kaas bi rek mu ne ko seet ci naan mu ñëw alalu nekkoon fii mu ne waaye lii kay lii kay daa wex ba ndox bi daa wex ndekete yoote moom dara jotu ko mais gis nga naan na ko man mi waroon naan comprimé gis nga duggul sa gémmiñ ab jëlite noonu lay xam mbokk li nga li yàlla tudd na sa wërsëg la kenn mënul tee ba nga jot ko mais gis nga li yàlla tuddul na sa wërsëg adduna ak kii mënuñu dajee ba nga jot ci maa farratna fil kitab min shay'in borom boobu subhanahu wa taala nag ne mi ngi noonu ñoom ñépp it dañ leen di dekkal ci seen borom gaa yi muy mbir bu yéeme alaxira ngeen foog ñu nit ak jinne rek kay dekkee waay mboolem lu mas a jaar ci kaw suuf day dekki ca sànq maa ngi leen di wax ay ñay mais bu ñu toppee historien yi ak yax yi ñu gis am na ay façon bindaa fan yoo xam ne man ngaa dajale fanweeri ñay benn ci ñoom mu leen di ëpp ñu koy tudd ay dinosaure tubaab yi dinosaure lañ koy wax su maam yi xam lu ñu koy waxee am na façon yi fi nekkoon yoo xam ne ni ñu tolloon yàlla rek moo ko xam suñu borom nee na nag lu mu mës a bind ci kaw suuf ci ay picc ay gaynde ay jaan ay lu mu mën a doon dana leen dekkal dajale leen yowmal qiyaama moo tax mu ne inna zalzalata saa shay'un azim mbir la moo xam ne bu ñàng ñàng lay doon keroog xale yi dañuy bijjaaw ma ila rabbihim yasharuun su ko defee atte ya yàlla atte bàyyi muy ci seen diggante yonent bi jox ñu ci misaal benn xare nga ne la ak i béjjénam ñoo fekk moromu xaram mu dóor ko mbëkk ba gaañ ko yowmal qiyaama suñu borom dana leen taxawal xar ma néewaloon doole yàlla jox ko ay béjjén mu fayu ca kaka tooñoon noonu la ñuy fayoo ci mboolem njaa àll yi mboolem fas yi mboolem képp koo xam ne nii yoraloon na sa morom aq yàlla fayoon ci ci seen diggante ba pare gannaaw ba nag mu ne leen dellu leen nekk poussière ñoom duñ dem ajjana duñ dem sawara keroog la yéeféer naan yaa laytanii kuntu turaaba ak a neexoon ma bokk ñay def poussière ak a neexoon ba muy dund ma nekkoon mbott wala mbaam xuux wala ba yàlla bañ ma dekkal ba yàlla bañ ma yóbbu sawara gannaaw ba nag mu des nit ak jinni nit ak jinni ñoom la yàlla di atte utal leen ñaari kër ña jaar fa ko neex mu tàbbaleen aljanna ña jaarul fa ko neex mu tàbbaleen sawara mi ngi noonu borom bi na subhanahu wa taala ni ñi nga xam ne dañoo weddi samay aaya ngalawaay yonente bul rey sa bopp ci ñoom ñoom dañoo tëx mënuñoo dégg ak waaraate dañoo lu mënuñoo wax lu baax ba pare dañoo nekk ci biir lëndëm ca mbokk loolu jarul ñu naan duñu gis xam ngeen ne mbokk doomu aadama sa bët bii du ne bët rek mooy gis bët pour mu gis il faut lumière am am déet mais nit ki bu ñu ko tëjoon ci benn néeg fermé hermétiquement lu bëtam neex neex du gis loolu tax nag borom bi subhanahu wa taala ne maadaama ñoom ñi ngi ci biir lëndëm lan moo fa des dañoo mënoon a yuuxu nit ñi wàllu leen te mënuñoo yuuxu ndax seen gémmiñ a baaxul wala boog nit nekk fee naan la ey Modou jaaral côté ndeyjoor ca seen nopp baaxul noonu la yàlla di dóore misaal mooy yow yonent bi bul jàpp ne da ngaa munta waaraate bul jàpp ne da ngaa éloquent wul wala bul jàpp ne lii ngay wax convaincrewul déedéet yéeféer yi seen nopp yi seen bët yi ak seen xol yi dafa tëju mënoo tax bañ dégg ak waaraate mi ngi noonu borom bi nag ne ku ma neex ci samay jaam ma réeral la ku ma neex ma jubal la naam joxe nañ misaal sànq ci ñim jubaloon ñi génn makka dox 400 kilomètres jëm madina ne dañuy rey yonent bi ak sahabaam yàlla subhanahu wa taala ñoom ñëpp mu dajale leen dugal leen ci lislaam mooy def lu ko neex waaye itamit mooy réeral ku ko neex yeneen ci yàlla noox mi mu yónni mu wooteel ko mille ans mille ans presque cinquante ans ca manqué yàlla jël doomam réeral ko tabbal sawara jël jabaram réeral ko tabbal sawara kon yàlla mooy def lu ko neex am déet yàlla na yàlla jubal na moo tax mu ne mi ngi noonu ku ko neex teg ko ci siratul mustaqim loolu it moo tax ba foo mën a toll boo koy ñaan dee ci bàyyi xel ihdina siratul mustaqim liñ la ko waxe sànq mooy yàlla yal na ñu xamal yoon wu jub wi saxal ñu ci bañu dee ca yal na yàlla nangul ñu ko mi ngi noonu Cheikh Ousmane
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون جزاكم الله خيرا سنبرم مني قل أرأيتكم أم ndax gisu leen ñel leen in ataakum azabullah su dee da leen dikkal mbugalum yàlla aw atatkum saa wala mu dikkal leen lii di bisu pénc a ghayra allahi tad'una in kuntum sadiqin ndax keneen ku dul yàlla ngeen di woo su doon nekk ngeen ñuy dëggu bal iyaahu tad'un la am kay mooy moom rek ngeen di woo fa yakshifu ma tad'una ilayhi insha mu daa di teggi la nga xam ne wuññi la nga xam ne yéen nga cee woo jëme su ko neexee wa tansawna ma tushrikun su ko defee ngeen fàtte li ngeen doon bokkaale wa laqad arsalna ila ummamin min qablik ñun de yunni woon nañ ci xeet ya nga xam ne jiitu woon nañ la fa axaznahum bil basaai wa darra mu da ñu jàppe leen ca la nga xamee ni nii mooy ay guerre wa darra ak ay feebar ak i ñàkk laallahum yatadarraun ngiree ñoom ñu nekk ñuy toroxlu ci seen suufu boroom falawla is jaahum basuna tadarra'u e way anu lu teewoon ba mu leen dikkale suñu ay ñu toroxlu ci seen boroom walakin qasat qulubuhum waaye dafa wow la nga xam ne mooy seen xol ya wa zayyana lahum shaytaanu ma kaanu yacmaluun noonu la leen taarale shaytaani la nga xam ne moom lañ nekkoon di ko jëf falamma nasu ma zukiru bihi bañ demee ba fàtte la nga xam ne dañ leen ko doon waare fatahna alayhim abwaaba kulli shay'in noonu lañ ubbee ñeel leen bunti lépp lu mën a doon hatta ida farixoo bi ma uutu ba baa ñuy bége la nga xam ne nii jotoon nañu ko joxoon nañ leen ko axza axaznaahum baxtatan fa ida hum mublisun noonu lañ leen jàppee ci betteel ñu doon ñoo xam ne nii ñoo naagu lañu ne xam nañ ne amatuñu fu ñu mën a mucce mi ngi noonu mbokk suñu borom day wax ne waaw bu doon dama xëy indi sama mbugal na doon mbugal ma ci kaw la jóge ci suuf la jóge wala ñu xëy xëy rek lii de bis penc tàbb ci yéen ndax da ngeen woo keneen ku dul yàlla déedéet mbokk dilit yàlla mu ne yàlla rek ngeen di woo fàtte seen bokkaalekat yi te loolu yàlla wax nañ ko ci aaya yu bari mi ngi noonu ah la in anjaytana min hadihi lanakunanna min ash-shakirin mooy boo ci jëlee benn exemple ikrama doomi abi jahal bi ñu leen doon wax sànq sonaloon na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak baayam gis nañ lam def ca uhud def ko ca badr yonent bi ñëw di ubbi makka mu ne xamul ko yonent bi di baal waaye moom bokku ci ca la jële ay bagage am daw daw ne day jéggi géej dem yoonam yàlla dogal bi ñu demee ba ci biir géej ga seen gaal gi commencé di jayyi jayyi di waaju suux am ñu commencé di tiit benn magum arab daal di jóg taxaw daal di ne bu leen woo ku dul yàlla bu leen woo ku leen yàlla wax leen yaa allah kese yaa allah kese su ngeen waxee keneen ku dul yàlla rek gaal gi dana suux ikrama ne bisimilah jàmm mais ñun muhammad lii lañ am ak moom problème moom nee na ñun yàlla rek la ñu war a woo néegam biir géej gi yàlla rek a fiy musale kon jiiri jiit yàlla rek a fiy musale daa dina yàlla boo mu musalee ci lii danaa dem jaayanteeg sa yonent bi yàlla musal ko mu génn fekk na sax yonent yàlla moom bal na waa màkka ba ne ba soxnaam si jóge màkka daw di ko dabi pour wëri ko histoire ba xaw naa gudd waaye lañ ci dun itteel rek moom mooy loolu allahuma lu dul nag mbokk lenn ci suñu maam dañ ne kéeféer ga woon moo tane diine tey ji ndax yéeféer yi bu ma saan ñàng ba ñàng ñu fàtte bokkaalekat yi yem ci yàlla am déet nit yi tey nag fa mu gën a ñàngee lañ gën a fàtte yàlla gis ngeen cheikh aljazairi rahimahullah mi ngi koy nettali benn gaal bu jóge woon ba jóge Égypte jëm Makka nee na ñu dem ba ci digg géej gi rek gaal gi commencé jay di bëgg a suux mu am ñi naan yaa mu moo doo di wasir seen seen sëriñ ñi nekk foofee ndax bu doon Sénégal ñu ne yaa suñ jàmm yaa suñ sekk yaa suñ nangam benn góor arab jóg na yaa allah labalal bato bi gaa yëpp ne tekki di ko xool mu ne yéen yéeféer yi sax ñoo leen gën yéeféer yi sax a leen gën yàlla nee na yéeféer yi bu nekkee ci géej seen gaal di waaj a suux yàlla kese la ñuy woo yéen ngeen ay jurit lañu gaal gi suux ngeen naan yaa suñ diw yaa suñ diw ñëpp rus dellu ci gannaaw woo yàlla yàlla musal gaal ga am déet waaye malheureusement mbokk jullit da ngay gis ah y a deux ans ci gannaaw rek benn waaye bu doon nettali benn accident bu mu fekkee nit ñi tasaaroo am ñuy dee ci kanamam mais mu ne da ngay yéemu ñee nga naan yaa sëñ saw yaa sëñ saw ñee nga naan yaa sëñ caam yaa sëñ caam ba dee ngir yàlla lu tax mooy ba mu juddoo ba tey xamaluñ ko yàlla sëñ saw lañ ko xamal kee ba mu juddoo ba tey xamaluñ ko yàlla sëñ caam lañ ko lañ ko xamal loolu mbokk c'est très grave jullit bu nekkee ci tiis ak mu nekk ci xéewal yàlla rek lay woo amma la nga xamee ne nii mooy yéeféere ñoo yeyoo woon bu ñàngee ñu woo ñu yem ci yàlla kese amma nag malheureusement gis ngeen di xew borom boobu subhanahu wa taala ne moom ngeen di woo mu dindi la ngeen ko woo jëme su dee ne neex na ko la ngeen doon bokkaale ngeen fàtte leen mu ne nag ñi leen fi jiitu woon day jàppe woon naa leen ci ay tar-taru guerre yu metti jàppe leen ci ay xiif jàppe leen ci ay ay ay rafle ak i feebar defuma ko lu dul ñu torox lu dellu ci yàlla waaye li ëpp ci ñoom ba samay nattu ñëwee torox lu ñu dellu ci yàlla bokk ak dor mooy weenu xar mi gis nga mbott mi day jóge fële sukk ci suufu yaayam di nàmp noo nit ab julit loolu la war a def yaakaarul kudul yàlla gis ngeen borom bi nee na da ngay gis na seen xol ya dafa wow moo tax seytaane taaral lan lañ lañ nekke woon bañ ko defee mu ubbe leen bunt yépp gaa yi yow ndawal julit te yéefiri yàlla ubbel na leen bunt yépp ba ñu ngi naaw ci jaww ji comme ay picc ñu ngi dugg seen sous-marin ni comme ay baleine lu nekk ci àdduna ubbil nañ ko waaye bul fàtte ne ay daanaka cinq six siècle ci gannaaw xiif yu tar métit yu tar daloon na seen kaw ba historiens yi dañ lay wax ni France gi tey ak lim mel yépp daa nga gis ay mbooloo ñu ànd di dem ba gis ñu gis caamin boo xam ne moom mi ngi lax-laxal ñu jàdd ci ngeer gi reddi ko lekk ko doog a jàll kenn amul loo lekk laa dikk li daan def équilibre ci ñoom ci jamonoy xiif mooy buñ ñëwee baadole ñoom dañuy dee ñi ñi nga xam ne ñooy mën a résister résister ba yàlla ubbil leen lii mu leen ubbil fatahna alayhim ababa kulli shay doonte ne ababa kulli shay naam xéewali ubbeeku na mais fitna yi ubbeeku na fàtte nañ yàlla seen maam yi doon nañ jaamu yàlla ak seen pauvreté ñoom bi yàlla ubbi àdduna ñu fàtte yàlla yàlla ubbi leen nag fitna yi àdduna fitna yi rayante bu dul jeex fitna yi famille yi tas fitna yi kenn bëggatul sa morom fatahna alayhim ababa kulli shay suñu borom nee na bañ demee ba jàpp ne bég nañu arrivé nañu ma jàppe leen ci mbetteel ten foofu la jaar yàlla jaar ak xawmu nuux xawmu huud xawmu saala xawmu luut madiyana ila axiri amma suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam moo ñaanoon yàlla jalla wa ala yàlla sama xeet lu ñu mën a def ci lu mbon e waay yàlla maa ngi leen ñaan bu leen alak benn alak bàyyi leen ba yowmal qiyaama ña yeeyoo mbugal ñu mbugal leen looloo tax ba xeet yu jëkk yi lu ñu daan def ci lu bon rek xeetu yonent bi multiplier na ko par cent mi nga noonu xaw ma lool yàlla mi ngi ñuy wax ni dañu nekkoon ay góor jigéen waaye xoolal ñun li ñu xewal li ñuy tuddee pédophilie boo ko doon wax sunu maam yi xamuñu ko ñoo xam ne mën nañ jóge réew ba réew ngir uti ay xale yoo xam ne mooy di 10 ans pour ànd ak ñoom zéophilie ñoo xam ne nii dañ leen di yóbbu ay place yu cher et cher ñu fay ngir dem di seeg ay golo ki xaja ki mbam xoox ah ñii dem ba lu nekk xalaat nañ ko am na sax lu ñu mujjee fenn lu ñu tuddee nécrophilie ñoo xam ne nii nee nañu ay néew rek lañ bëgg di sëyal dem ci morgue di sàcc ay néew di sëy ak ñoom wala ñu dem ci biir armée li ci biir néew yi di sëy ak ñoom lu mbon gu maam yi defoon bañ alag leen rek ñun def nañ lu ko raw waaye nabiyu rahma suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam moo ñaan yàlla sama xeet luñ mën a def yàlla yàlla na nga leen muñal bu leen faagaagal mukk ba ba àllaaxira su ko defee képp ku ci tuub avant ngay dee yàlla jéggal la mi ngi noonu képp koo féttarlu nag ba dajeeg sa borom ah su boobaa loolu moom beneen mbir lay doon loolu moo tax ba mbokk julit ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla boole ñu ci jaam ya koy nangul ak njaam ci jamonoy xéewal ak jamonoy tiis yal na yàlla subhanahu wa taala musal ñu koy bokkaale leen na lu ñu xam yal na ñu jéggal lépp loo xam ne ne xamuñu ko yal na ñu defal mujj gu rafet te boole ñu ci ñay texe àdduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ci judd ci boom te waa ji juru ko ndax day doon ndax ndax waa ji nangu na ko wala nanguwu ko bu ko waa ji bu ko waa ji nanguwul moom day wax soxna si da ngaa njaaloo la ñuy tas seen diggante kooku moom du doon am maa nag bu dee ne waa ji jàpp ne ne doomam la ah kooku moom du tey day doon ala kulli xaal bépp doom bu juddoo ci say bàyyi ma ko jur lu dul bàyyi taxaw ne juruma ko wallahu subhanahu wa taala alam waaw waaw kon naam naam mu ne waaw jullee ci place boo xam ne ay photo ñoo la wër loolu day boo ko mënee moytu mooy la gën bu dee ne fexe nga ba fexe it nga fexe ba fa ngay jàkkaarloo moom photo bañ faa nekk waaye jullit du am pexe de jàkkaarloog ay photo di julli su ko defee daal loo bu amul pexe teggil photo yi ba julli ba pare mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaw woor di parfum woor di di di di cuuraay yi loolu lépp dara nekku ci parfum yàqul yàqul koor naam dem ci biir armeel di fa jàng alquran day ah yonente bi alei salatu wasalaam daf doon wax naan la tajalu buyutakum qubura mi ngi noonu seen kër yi bu leen ko def ay bàmmeel te mooy dee leen fa jël di naafila loolu moo tax ba lu bëri ci borom xam-xam yi dañ ne bàmmeel kenn dafa dem da jàng alquran loolu mooy la nga xam ne mooy mazhab Malik mi ngi noonu ba nga xamee ne armeel la fa yonente bi jàngale mooy ñaan yàlla jéggal leen yàlla yërëm leen السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والم- والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يغفر الله لنا ولكم إلى آخره loolu la yonent bi jàngale waaye gisuñu ci doxalinam moom sallallahu alayhi wa sallam wala ci digleem moom mu ne su ngeen demee armeel ya jàng leen fa saar sàngam jàng leen fa saar sàngam na am am na ci ay téere yum rot waaye yooyu yépp la asla lahu amul benn cosaan ci téere yu mag yi nga xam ne ñooy baasu diine ji wallahu subhanahu wa taala aalam naam waaw jeex na cha- chaque jour ngay jàng yaasin ala kulli xaal amuñu gisuñu lay buy wane ne chaque jour yaasin bokk na daal loo xam ne nii ay riwaaya am na ca doon te dene dëpp wunte wér ga yonente bi alei salatu wasalaam di wax ne su sañoon yaasin nekk ci xolu ay jullit am na it ñuy wax ne day faj ay aajo soo demoon ñu mel tafsir ibnu kasir dana fa indi wax yu bare bare bare ay hadis yuñ ci wax waaye dane presque hadis yooyu dara dëggul ci la nga xam ne daal nee na expérience la la ko wax expérience bu borom xam-xam yi jëkk yi amoon mooy bari na ay mbir yu jafe soo ci jàngee yaasin ñaan yàlla yombal ko moo taxoon mi ngi noonu amma li li ci gën a siiw mooy iqra'u yaasin ala mawtaakum jàngal leen yaasin ci seen ñiy dee loolee ñu jëkk ña nañ ko dégge woon du dara lu dul nit ki sukuraat ñu jàngal ko yaasin ba baa nag ngay dem armée li tey da ngay gis bu ñu suulee ba pare ñu ne diw jàngal yaasin ay diw jàngal mulku diw loolu moom ñu dëkk ñu sax xamuñu ko woon al muhim daal la yonent bi saxaloon di ko jàng mooy suratul mulk ak suratu sajda lii daal moom wér na ne ni daana ko jàng par guddi gannaaw bay al muawisat comme ni ngeen ko xamee qul wallahu ahad qul huwallahu falaq qul huwallahu nas daana ko jàng ci heure bu daan tëdd daana waxit amana rasul ku ko jàng ci guddi mu doy la kon guddi gën a mën nga ko jàng comme ni ñuy gisee ayatul kursi loolu daal ay mooy ya nga xam ne tegtal wér na jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk kon mi ngi noonu waa ñu mujjee ci mbokk bi rek insha allah bismillah waaw mu mu ne i'tikaf ba xam mën naa nekk diggante ñaari julli wala il faut mu doon ci biir julli itikaaf itikaaf mi ngi commencé ci li ci borom xam-xam yi wax li ci gën a digg doomu mooy guddeeg bëccëg loolu la ñu wax ne daal moo ci gën a digg doomu am na ñu ne mën naa nekk bëccëg kese am na ñu ne mën naa nekk guddi kese waaye daal itikaaf la ci gën a mat mooy mu am guddi mooy bëccëgu weeru koor bi nga woor ko guddi ga nga fanaan ca jàkka ja loolu mooy li ci gën a mat donc bu la neexee un jour nga itikaaf bu la neexee deux jours nga itikaaf bu la neexee dix jours yi mooy la gën a mat yonent bi alei salatu wasalaam sax bi mu fi mujj vingt jours la itikaaf loolu ñu bàyyi ci xel bu baax yal na yàlla dëpp la ñu ngërëmam fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain